asalaamaaleykum maa ngi leen di sant di leen gërëm man la Abdoulaye Dieye euh, un opérateur économique euh, bu nekk Thiès yaroo Thiès màggee Thiès euh, di defee sama activité yi Dakar donc nag tey dama ñëw fii en tant que parrain sama ASC di ASC Bayal je suis un jeune qui est vraiment engagé pour le sport donc ku moo tax tey depuis plusieurs années maa ngi œuvrer pour l'émergence du sport si euh, sama gox di ASC Bayal donc tey honneur bi ñu ma jox c'est un mérite ba jël ma parrainel ma seen finale donc maa ngi leen ci sant di leen gërëm te it bi jël naa ko ma delloo war ko si ñaari équipe yëpp parce que ñaari équipe yëpp c'est Thiès te ñun suñu ambition mooy le développement de cees amul koñ bu ñu dëkk amul koñ yëpp lañ yemale donc daal euh, vraiment mu ngi ñaan yàlla lii ñu jub si yàlla defal ko ndam defal ko si def ko si si ñaari équipe yëpp jërëjëf alhamdulilah bon lu tax euh, les amis de Cheikh Kanté c'est pas le hasard donc c'est un mouvement boo xamante ni ñun dañ see dugg parce que dañ see gis suñu bopp parce que tey ku gis Cheikh Kanté xam ni c'est un travailleur ku koo koo xamante ne nii chaque jour bu dégg bëccëg moo ngi dox si bëgg-bëgg président de la république donc ñu ñu gis si moom jom gis si moom farlu gis si moom li li liggéey moo tax ñun ñu dem waru si gannaawam pour jàppale ko jàppale bi mooy loo xamante ni dañ suñu réew parce que lépp lu ñuy def c'est pour le développement social yàgg nañ euh, exceller sur le social boobu xamuñu Cheikh Kanté xamuñu Macky Sall donc nag tey lii bu ñëwee ñu gis euh, koo xamante ni li liggéey la gëm donc pour le développement du pays donc ñun dañ ciy jàpp donc daal tey moo moo tax mobiliser wu derrière le docteur Cheikh Kanté pour jàppale ko pour jàpp si euh, émergence bu président de la République woote jërëjëf. waaw sama présence mooy ñëw représenter le directeur général di port autonome de Dakar docteur Cheikh Kanté ndax bis bu rëy bii nga xamee ni dañ ko jagleel notre euh, directeur mu jël ko delloo ko euh, Cheikh Kanté le DG du port autonome de Dakar DG rafetlu ko mu doon lu rëy ci moom ñu ñëw fekk fi une forte mobilisation vraiment mën naa ne kees gëj naa dund lu mel nii. looloo waral tey ma ñëw accompagner ko sa mon ab laa Dieye mu nekk loo xamee ni mbégte mu rëy laa ci am nekk loo xam ni Cheikh Kanté lu rëy mbégte mu rëy la ab laa Dieye nag suñu frère la boo xamee ni dafa jël engagement pour ñëw accompagner la président Macky Sall pour jaarale ko ci docteur Cheikh nee na ma soxlawu ma ay moyens Cheikh li ma yàlla jox ma koy bokk ak waa Thiès ba tax na su ma leen wooyee waa Thiès génn yëpp génn wuyu ma moo tax man ma jël engagement xam ne bu ma jàppalee président Macky Sall jaaree ko si docteur Cheikh li mu bëgg fii ci Thiès dana ko am mooy président waa Thiès falaat ko dès le premier tour. loolu moo tax ma ñëw ànd ak moom frère Ablaye Dieye gis naa nag ni population Thiès ku ko bëgg nañu ndax mobilisation tey bi vraiment yéex naa koo gis fii ci Thiès gëj naa ko gis. ça se ko que ni doomu Thiès la ça se voit que waa cees nangu nañ ko ça se voit que waa Thiès nangu nañ ko jàppale waa Thiès ànd nañoo ak moom moo tax tey bi ma ñëwee ma am fierté nag non seulement guddi na ma ni dina ma ko jaral ndax président Macky Sall ak docteur Cheikh Kanté ma toog xaar cérémonie bi ba mu jeex mais vraiment moom li ma doon sama tànk mais je suis content te su ma eggee dinaa rendre compte le DG du port mooy docteur Cheikh dinaa ko rendre compte te dina rendre compte président Macky Sall. lii daal moo doon sama tànk moo tax ma ñëw fi je vous